maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre de finance budget budget monsieur le ministre du travail di nuyu seen collaborateurs yi ngeen àndal yëpp. di sant yàlla bu baax euh, di sant si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul monsieur le ministre tey ñu ñëw di waxtaan ci li nga xamante ni moom la la nattal deux mille vingt quatre mu war a doxal li nga xam mooy si ministère mu toll si maanaam deux cent trente sept milliards crédit engagement nekk cent quatre vingt dix sept milliards crédit de paiement. boo duggee ci mbirum BITS bi rek monsieur le ministre li ñu si mën a jàngat tey boo jëlee li nga xamante moo jëm ci titre 303 3003 jàpp naa ni tey fonds lutte contre euh, incendie 200 millions loolu pour man tuuti na. boo jëlee tey aussi tamit si programme 3010 le programme le compte commerce de police monsieur ministre des finances bëgg naa aussi ay leer yu gën a leer parce que compte de commerce police bëgg naan a xam parce que maa ngi ko di jëm aussi tamit monsieur le ministre ci affaire sécurité ku wax Sénégal wax sécurité réew mi ñi ngi sant di gërëm suñu force de défense et sécurité ay nit lañ yoo xam ni tey bu ñu manee tëdd nelaw ñoom la tey bu ñu mënee dox ñoom la tey bu ñu añee jàmm ñoom la ñoom duñu ay politiciens ñun ñi ñoo ay politiciens yi man yow ah ak euh, monsieur le du politicien mais ñu ne suñu yëpp kenn du si politicien parce que ñoom askan wi mooy la ñu réew fi bàyyi boo xoolee sama xarit Maguette Niang mi nga xamante ne tey moo nekk directeur général di Birse mais kan moo ko dàq liggéey ci réew mi amul mais grand frère bu bokkal ndey ak baay tey mooy Pape Alé Niang daanaka moo gën a contre pouvoir bi te teewul mi ko dara c'est-à-dire da leen di wax ne ñoom que ñu déter maanaam ñu xàjjale fonctionnaire ak politicien bàyyi di passeport ñun waa Touba mooy département bi ëpp maanaam Sénégal tey bu ñu bëggee passeport quittance bi ñu am dañuy dem ba mu njaari wuti ko fa ministre ministre des finances jaaruwul tey ñu jóge Touba dem war na am machine boo xam ne impôt domaine bu ñu bëggee quittance wala timbre man ko faa amee au lieu que ñuy déplacer dem bi depuis maanaam juróom-ñaari at bi fi toogee ensemble ñu ngi koy wax mais ba léegi nii dara am aussi bëgg naa li nga xam moom la war a def mooy ñu jël fond bi nga xamante ne moo war a jëm si mbirum passeport jébbal ko police def benn compte transfert spécial boo xam ne police moo koy seere parce que tey bu nekk am ay a rupture passeport yi nga xam mooy li am nañu xam ne dañu koy jagleel directement passeport ñu jox ko police mu seeral ko boppam heure boo xamante war def commande mu def commande ñu mën ko contrôler loolu mooy li xam moo am jaaru tey boo jëmee si li nga xamante ni monsieur le ministre ci affaire candidature yi man candidat en tant que doomu daara c'est le meilleur candidat du Sénégal man la parce que man maa fi gën a jub doomu daara laa maa fi ëpp xam-xam parce que xam-xam du làng ba pare musuma sàcc alori musuma bokk ci nguur musuma def lu bon ku bëgg a fal ku baax man nga war a fal mais li ci am mooy monsieur le ministre ñun doomu daara yi tey boo jëlee article 28 bi mais mënu ma nangu tey 95 pour cent dégguñu tubaab ay olof lan injustice mënut a passé yow ki nga xam ne yaa war a jiite nga ne ko yow 95 yi nga dégg doo jiite mooy doomu daara yi nan leen bàyyi ñu jël laaj réew mi parce que ñi nga xam ñoom leen war a jiite dégguñu tubaab dégguñu ay français parce que français làkku jàmbur la complexe yi mënul passé tey ki nga xamante ne moo war a jiite sa réew nga ko boo déggul làkku jàmbur doo réew mi loolu c'est injuste la demain incha allah laay dépose sama caution 30 millions sama parrainage pare na dinaa dépose laaj baatu réew mi bu ma Macky Sall xañee nag en tant que doomu daara ci loxo xam ne su boobaa incha allah dinaa combattre ànd ak opposition bi xeex lañ ngeen daan bu ma bàyyee nag ma boobaa jàmm am ci réew parce que jàmm lan soxla élection yi soxla wuñ ko ko dàq mais opposition bi dañoo bëgg ñu dàq élection yi xamul tax mooy dafa am benn recours bu ñu boo xam ne recours boobu noonu ci cour suprême recours boobu bu jàllee cour suprême day dàq élection yi il faut ñu waxante ko parce que recours dafa wax ni lépp loo xam ne Macky Sall ko defoon ci seena nan ko annulé buñ ko annulé li nga xam moom la code bi wax bu Sénat amul élection du am te ba nañ dem ba mois de janvier cour suprême génn ni maam cassé na recours boobu suba président la day dàq élection il faut ñu waxante dëgg te loolu mooy li fi am ñun nañ dem si élection jàmm am bëgguñu xeex bëgguñu xuloo ku gagné ñu xam ne yaa gagné Sénégal yemul 2024 yemul 2035 man ndaw ku mën a yor réew mi ni ma yàlla may may na ma ko man soxlu ma àllu réew sëñ Touba laay dundee ku fi nekk da nga ànd ak man ku bëgg mooy li ma ñor mooy li ma gëm en tout cas nañu war si dàmm war si dal ku war a dem dem ku war a toog toog ñuy war si jàmm je vous remercie jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah je vous remercie cher collègue